salaamaaleykum alors maa ngi nuyu sama mbokk journaliste yëpp ak professionnel de l' information de la communication yi nga xamante ni daje nañu ak ñoom tey ci dëkk bu mag bii di Thiès. li ñu fi indi nag tey mooy ñëw saafonte ci biir campagne bi feeñal suñu yéene waxaat suñuy mbébét ñi nga xamante ni ñooy askanu cees dama war a rappeler ne ci Thiès bokk yi gën a mobiliser pour pare nañu. donc waa Thiès dama leen di dellu jukkal ci yaakaar bi nga xamante ni yaakaar bu bopp ñoo ne dañoo décider rompre avec la vieille classe politique Thiès tey boo fi ñëwee lépp loo xamante ni dafa nekk jafe-jafe ci wi da ko fiy fekk chômage bi foo ko takk weesu na ko bu weesoo chômage bi ci wàllu formation des jeunes l'employabilité foo ko takk weesu na ko jobbaas la njëkke tey waaye boo fa demee ci jungaan ak jobbaas yëpp li ko wër accès bi c'est extrêmement difficile déficit infrastructurel boo xamante ni maanaam amul ay yoon yu ñu war a jaar pour dem fa. dañ demee Jobaas tey li ñu soxna yi wax mooy ay naara ñëw fii am fi ay tool di ko exploiter di fi yóbbu xaalis bi lu bëri di leen fay deux cent cinquante francs par jour kon loolu te quatre heures du matin la ñuy jóg nee nañ hôpital amul. hôpital yi nekk ci biir Thiès sax hôpital régional bi xam ngeen ne ñu ci bari tey bu ñu bëggee faju xam nga ne am na spécialité yoo xam mënoo ko am fi beneen bi mooy Thiès nag bu loolu yëpp weesoo nga xamante ni en terme d' infrastructure li fi war a am des na xam nañ ko xàmme nañ ko mun figurer en bon place ci suñu projet wàllu raay bi ñun lu ñu gëm la ndax raay mënta ñàkk te fépp fu mu jaar dafa koy dundal ndaxte y a toute une économie autour zone de production yi dafa sori zone de consommation yi loolu sax dafa tax li ñuy jënd muy cher ndax fañ koy bayee fa muy meññee ak fañ koy jaayee ji dafay sori loolu nag raay bi moom moo ko mën a lijjanti. deuxième réserve de gaz cees la nekk muy Kayar loolu nag gaz bi ak régler la facture énergétique ak tous les métiers du gaz tey jii Thiès war nañ ko waajal ci loolu. doomi Thiès tamit war nañoo fexe waajal leen waajal seen i ndaw ci les métiers qui sont autour du gaz. nga xamante ni su boobaa bés bu ñu tollee ci exploitation ay ñëw di ko exploiter di leen def ay ouvrier waaye ñoom ñooy téye liggéey bi nekk de vrai un vrai secteur privé national bi nga xamante ni dinañ ci mën a gis seen bopp mën cee dund dund goo xamante ni bu mucc ayib la bonne gouvernance dinañ ko placer au cœur des politiques publiques lutte contre la corruption la concussion ak lépp li nga xamante ni mooy nasaxal euh, liggéey bi nit ki war a liggéey ci pénc bi loolu ñun jàpp nañ ne bu ñu ñëwee dinañ ci jël ay mesures yoo xamante ni yu forte wane ci tamit yoon woo xamante ni képp koo xamante ni tàbbi nga ci dinañ la teg ci yoon ba nga xamante ni kenn dootu ko ñemee xalaat ba koy def. kon daal loolu moom mooy euh, kàddu yi nga xamante ni bëggoon nañ ko seq ak yéen di leen gërëm di leen sant di ñaan waa Thiès ñu wóolu ñu jox ñu carte yi.